li ci yéen kay El Hadj Assane Gueye mbiri Papa Alenyang, journaliste d'investigation source a Disney, procureur contre ñepp la jamono yu kap di bi ëmb association de presse du Sénégal di sakku ñu bàyyi ko Alenyang, papa ONG 3D it naka non ak ku ci mel soxna Aminata Touré ak Ousmane Sonko Yene kay bi procureur génne na benn bataxal bu mu tuddul sax benn yoon turu papa Alé Niang waye di ca dankafu ñi xewal fan yi mu ne di dal ci kaw ak ci réew mi ci mu ni ko lu mu enquête yéenekaay ne presse bi ñoom benn dank lañ def ci weti Papa Alé Niang ngir ak njàppale waa CAP di mbootaayu association taskat xibaar yi sàkku ñu bàyyi ko ci di fàttali état bi la ko war ci wàccoo constitution bi rawatina ci article ak 10 yi garanti yelleefu jot yi xibaar yu bari te wuute Le Quotidien gis ne procureur ma nga yokk moom ci xar karaw jàppe kàddu yi Papa Alé yi ay cong yoo xamante ni wéeruwul fenn la yuñ dul nangu benn yoon yéenekaay bi di réew ci boole wàllu yoon ba tey waaye libération bi xëy bi yoon indil ñu ay leeral ci section de recherche bi mbaal ci diwaanu Thiès ñu fa doon yëngu ci wàllu xaalis bu bon yéen kaay bi ne Cheikh Issa Ndiaye ak ñi mu ci lëngaloon xaaju guddi la ñu bàyyi Ndakaaru àjjuma génn wutali diwaanu Thiès ak billet noiru dollar ak euro valeur un milliard waa section de recherche daal di leen infiltré maanaam daal di sërëxal kenn seen biir ñu jàppe ko ab laveur di ko doon setal billet ci Thiès loole moo leen sànk ci Mbour 1 wàññik dund gi wàllu luyaas bi Sud Quotidien ne aju luyey ko lool waaye ak naatable nag lanu ci boole ndax borom kër yu ñuy tiit ñu daw gaaw yokkaat luyaas bi nanu ko ni defee woon atum 2014 ndax état bi nga xamante ne da caa boole woon ak ceetaan na ko noonu ak ñàkk topp njiitu réew mi moom président Macky Sall ci Sharm el Cheikh ci Égypte ci laas ci kaw ubbi ndaje mi nu fa jagleel luy sawee jaww ji ci àddina ma nga ca naan moom président Sall faw ay jëf ngir sawee àddina bi ci boppam ci Le Soleil moom njiitu réew bu Sénégal di njiitu Union africaine di fàttali réew yi xamante ne jaww ji ne ñooy ñi war a fay ma ngay fàttali it la gën a yitteel Afrique ci jóge ci énergie bi posé ne jaww ji jëm ci bu set bi ak it koppar yi Afrique soxla ngir mën a dékku coppitey climat bi ci l'info président Macky Sall di ci xamal réew yu naat yi ne wartu noo ne ci jamono noppi jàpp ne it nag ma nga see am ak tan ci wàllu woowu ndax jamono yi waa booram nanuy ay ayloog Ousmane Sonko bañ koo may dara dañuy des ak président Macky ak directeur général bu AGETIP mi wax ci lu leer ne mooy mbërëm ngir 2024 di lu ñu jàng ci yéenekaay bi di direct news El Hadji Malick dafa jàpp ne li waral mu waxee ni président Sall dafa liggéeyal lu bari Sénégal ca mu ne faaw gunge ko ngir mu yeggale coppite xar kanamu réew mi mu jógtee observateur diis na lool daanaka wees na rëdd wa yéemu waa rëddoon jamono yi borom téeméer yu jël juróom juróom yu am am di bàyyi ko ci réew mi wàllu làmb la ñuy jeexale ginnaaw ñaar fukki ati carrière Papa Sow jël na retraite am sunu làmb ak record ñooy ñi nu ko xamal moom Papa Sow naan ca dogal la bu mu jëloon nag laata muy sëgg ak Siteu Siteu mi koy xamal ci yenn kaay bi di sunu làmb ne ku am wekk respect gu mat sëkk la ci moom Papa Sow carrière bu riche ni nu ko waxee ak ñaar fukk ak ñetti victoire naka noonu juróom-ñeenti défaite Siteu moom ginnaaw ndam li ci kanamu Papa Sow yenn kaay bi di sunu làmb na yoon wa ca bokk na ci ñi nekk ci kanamam ne ay adversaire lak